waaye booy Ndiaye. waaw nu mbir mën a xewee ci kër gi ñun ñu koy dégg ci mbedd mi. maa jàmm mbir la loolu. teew ñaaw na. lu xew kas ci loolu ñuy wax ni xale yi ñuy eh, défilé dem. dañ koy dañ koy def fee. xale yi eh, eh, fële xale yi di simeeku fee ca ca ca ca résidence la jox. waaw dëgg la maa ngi ci quatrième di maye seen yaram. quatrième édition bi waaw ci yëgaloo ñu ko bañ koy dégg. lu ci seen yoon. la beauté des yeux. Ah, waay seen yoon dañ ci ay mag nag. tama mën naa ba ci réew booy wax nga wax suñu waay nga waay ah booy. sunum ñaan yóbbuñu waay booy sunum ñaan wala boo xëcc sama sikkin ah da ngaa xam sikkin bi sikkin la la. sunum ñaan. Euh, Samb. Hmm. xam nga lu ma metti lu tax nekkuma jiin jiin xoolal lee rek. ñu sopp sa sa jëmm jii jiin ma nekk jiin. Ah, man nag bu ñu ma ne woon taamul li nga bëgg a nekk. Hmm. xam nga lan laa bëgg a nekk. Ah. seize anglaise. <laughs> di gis lépp. ah xam nga ko de. Ah, Binta euh, pourriez-vous nous donner euh, le nom actuel du président des États-Unis euh, je, je pense que c'est George Bush. George Bush. ay ah, laay laay George Bush a nekkoon ca ngeeru Irak ga. du doon Reagan du doon Reagan waaye. waxuma la dara waaye wóolu giñ la wóolu bu ko. ko fowee géej kon gaañ. wa waaw alors booy ji. am naa la na nga def waaw waaw. laa bëggoon ma nga ko indi. dama yaakaar ci sa géej du fii. ma nga kër ga. mais père yow naa wut beneen client la. mais buy wutul beneen client. yaa xam waaw ñëw leen géej gaa ngi yow loo bëggoon ngeen soxna si yéen yéen nag daa yokku dafa cher defal ndànk waaw lii lii moom boo ci boo ci jël 1000 francs la waaw kii téeméer la. waaw muy yéen teel ko ko namm maa la raw na nga def. maa ngi nii. waaye yow foo jóge nii. damaa de moom génte la. ah sama xel ne si yow ma ne naa fi jaar. dëgg la dëgg la dëgg yow da ngaa gëj si. man de bu woon sama lii ma sol. waaw may pêche si géej man jaral na ma def ci mbuus indil la ko nga suppal ma. ma suppal ah, suppal ma ba mu neex laa bëgg yow. toog soo ñëwee sama kër ma wàjj man boo ma wàjjee laa lay wax ma ma ma borosét la maa la wax lii. borosét nga waaw dama lay daxin. man boo man boo ma daxinee ma yaasa la da nga bëgg ma wàjj la. ma yow boo a wàjjee ma boroset la. gis nga nag waaw tey nga daj. yow yaa daj. est-ce que laajte nga man ah. yaa ma man nga jara laajte. <laughs> man lii rek laay def. maay mbay géej mi. dama ko naan xoolal dama ko naan. Ah, waaw defal noonu. yooyu laay rek laay déglu damay ñikkal. ku fi romb romb sa njariñ gaa ngi ay ku fi jënd fi dewet géej gaa ngi <laughs> waay ku romb romb sa njariñ gaa ngi ku romb romb sa gaañ lay lay la dama ni man dama ni lii li muy xeeñ xeeñ mooy suñu teraanga bu leen ma ko yàqal def leen gejj gi ndànk te yéen ji daa léegi kilo 4000 la Tale moo ko yor. alaaj ñu nootu nañ fi timis julli ko fi ba noot fi gee ba koy waaju julli ñu toog nañ jëm julli waaye waaye déedéet nañ jëm julli jën ko toog toog toog dama am ay kii xool ko xool naan jël ah loolu la rek loolu la rek eh <laughs> Makor. how are you. yow nag xam nga da jàpp seen national li ngay wax man dégguma ci dara. fine ah. ci kàllaamay pocc. waaw ah. moo gën de. teel jàng wolof. moi j'apprends. mu ne la. j'apprends wolof. ah, ah. si. waxal wolof voilà. na nga maa ngi fi. na nga tudd. man Alaaji Sanex Sam kii Alaaji Góora. ok c'est bien ça. saaga ñu la jëm de. boobu xam naa ko sax bu ñu ëppalee saa ñaañalee saaga la. Sam tee ñu ko saaga. xam na ko. Uh-huh. saaga xam nga ko. quoi saaga. what. kacha. saaga xamoo ko. non. waaw bu ma woon sa xutu xata looy wax. sa xutu xata yow. nga la delloo rek. dégg nga garaawul. c'est le moment euh, aux amis euh, waaw attaque attaque attaque. ma man attaque. te bu loolu weesoo. Uh-huh. ba ne alaaji ko koy wax de. attaque rek waay ah. Ah, <laughs> daa mel na xam na li wax de réel na bëgg naa la man laa wax. ah waaw bëgg naa la torop te gis nga pour mu bañ a sori kër gii maison. ah bay foofu rek laa ko mën a jaar. teel ko fa nax ko kese dama la dama koy def ci sa tur doon la maison tout. waaw nga jël lépp nga naa la lool. la ma ko nag. waaw waaye xam naa ni ma koy defee. bëgg naa la torop man sax euh, bëgg na yow waaye. dégg nga. Eh? am na lu si ñuul. danoo si ñuul. ñuul lu si ñuul la. nañu jël lu si ñuul waay ñaf waay taw ta kuy magal comme que lu si ñuul rek ama baare. xam nga ñoom ñii foo nañ te gaaw nañ ci loolu ne ko teg ko fii rek nga xool nu muy wax ci laa jëm ñuul daal nga ciy xalaat yow mooy fi nga pensé lu ak wax na la ko jox de ah, ah, alaaji xam nga gisoon ni ma koy kiwén maa ngi ko koy def de alaaji ah, soo xaar gis nga mi ngi may gën a jege de la ilaha illallah ah bëgg naa la de bëgg naa la aussi ak yow mooy bëgg nga ma bëgg naa la dang may nax <laughs> yàgg naa la koo bëgg a wax. Samba foon ko ma xool ndax dëgg la. li alaaji yaa ngi bëgg a ëppal de. Ah, yokk loxo rek. du koo xam rek eh. lay daa moom jiite na la si. <laughs> alaaji daa mel ni nag ay conférence yu melentaan maa nekk sama yaram. Ah, mm-hmm. ah. sama yaram baa ngi daw. mi ngi may xool xam naa damaa yërëm. <laughs> mën naa laa biisoo. bien mm. sûr gañe ngeen ma de. alaaji nag yow it bu ñu xool damay rus rek. gañe ngeen ma de. Mm, waaw. ah ah tu le fais bien. mu nga de. tu le fais bien. nee na aay naa de. ah alaaji man may bandi. Bandi laa nag ancien ancien condamné bu mag laa. dinaa mun ci waxoon. wuy sama ndey. <laughs> yow it bandi nga de. mais euh, tu peux venir dans ma chambre. mu ne la sa biir néeg. oui je fa. doo ma ko wax ñaari yoon. je t'attends. maa ngi ñëw. tout de suite. léegi léegi. ok na sa leex. ndokk mm, mm, mm, ndokk ndokk na ma mos na ma ko ma jël conseil conseil tuuti yàlla soxorul de yàlla ak kay naan di. Ah. te mën a comprendre doomu adama bu nekk ci situation. <laughs> lii foo koy wax ma ko. man dama xaaruma ñii de. wóorul yi laay de. wóorul yi wóorul la. yow lislaam bëgg na sa da ngaa dégg rek ah waay ah yàlla yàlla naan yàlla soxorul de. ndax yàlla soxorul. Hmm, baax na waaw wala mbay géej laa soxla woon. wala boog mooy lan mbay géej. Ah, yow xam nga ban heure la waaw lu sama ci ëdd. wax ji bari na quoi. may gën di war a new ko indiscipliné nga. waaw ah, d'accord jërëjëf. waaw mais mi ngi fi war a nekk fi. xam wala wala boog jërëjëf. Eh, fii sa lot nice. Eh, mu nga lan la. mbay yéen mi ngi fi dama soxla yéen léegi nii quoi. xanaa booy ngeen wala lu ngeen doon yéen. waaw waaye bu fekkee ne dañu leen a bëri quoi eh, defan naa yow gerte nga soxla kii yéer. yoxo sax ci ci bu ñu soxla bu ñu soxlawul. mi ngi fi war a nekk ah bon. ci biti en dañ ko jël de. non sinon dañ leen di yee. dose gerte ak nga mu ni bool ñu dulul doos bi dinañ leen yee. waaw. <laughs> ah. alaaji <laughs> alaaji. booy yi ci technique la ñu waxe baax na booy tux parce que booy baa ngi lox. te ñiy lox ñiy tux ñiy lox ñëpp siiku maan yi lañu leen tuddee dañuy siik ah. bu ñu tuxul mën nañ laa dóor ñii xam nga dóor ñu moo leen dese woon. kon mbay mii daal defe naa ne. rek seetu si de. alaaji dina daan wàcc ci kër gi. Euh, faw ñu solaat tenue yi de waaw waaw. waaw faw ñu solaat tenue teg ma bàyyi ak bi bi. alaaji ku couvrir ma. nga jël dossier bi. nañ ko jëlandoo rek. Ah, waaw waaw diis na waaye dee damaa defe ni daal lal géej-géej yéeg ca kaw waaye ca suuf am na lu ca ne sous-marin la alaaji kii dana daal ok alaaji guddi àjjuma ji invité woon nañ ci waaye ah waaye li ñuy def ñu nag liggéey la de yeah naan di tee wala wala boog. na ko dóori. waaw nu mu demee noonu. waaw yow jox ñu ñu jàmm waaye jox ko benn tàmbaj. mu gën a xaar bu suba. Massa yaa bëgg a tàmbali ak yow. jërëjëf jërëjëf man jox ma yéen. ma xaar bu suba rek booy guddi. non non non non non. nit ñaa ngi melo. waaw jox ko saa ji benn tàmbali ak jox ma benn yéen. waaw waaw ñaar saa ñaar. ana xaalis ana xaalis bi. xoolal xoolal. saa ngi indil affaire yi waay bala maa yoole. Ah, yaa ngi ci ba. ah tey ah, ah, indi leen. jox ma jox saa yow Tamba Diagne. ah ah am na ñu ne waaw. eh eh nee na la. la amee naa la saa. eh waaye ma waaye ma ma ne ma ne ma ne. eh GIGN. la dégg. brigade de recherche criminelle. oui wa waaye yéen yéen la. defal naa ko. am nga yamba foofu ci biir. eh bu ma nit ñaa ngi da ko yamba ci ndax. nga yor yamba wala yoroo eh, yamba. dañuy wéeree wax leen ndàkk nit ñaa ngi. ubbil buntu néeg bi kon. Eh, eh, wax leen ndàkk nit ñaa ngi. jox ko sa téléphone. eh donc def dafa xam ne ma jox leen dara. jox ko sa téléphone ma jox def leen ndànk ma jox leen dara. nit ñaa ngi borom kër gi war ko dégg xam leen ma jox leen dara. ma ne ma jox leen ku nekk dix mille. non non. eh jox ko sa téléphone. waaw def leen ndànk bu ngeen. eh eh coupé. waaw voilà. ñaata ngeen bëgg. waaw def leen ndànk. c'est-à-dire que on est bi. wàcceel palanteer bi yow ah da nga indil ko ne cent mille. Ah, xaar leen rek kay. gaawal indil affaire indil. daa dund fii. beneen yoon da ngay yokk sa loxo dégg nga de. waaw waaw mais sama bàyyi dégg nga. amul benn problème da nga tëddi. très bien ok. wuyu ma waaw. Euh, yambaa ji ngay bàyyi. Eh, eh, eh, nga bàyyi njaay mi. waxal nag. nopil. tëjal sa loxo biñ laa wax. waaye. Ah. waaw ñu ñam la. aywa tëjal. tëjal laa wax. tëj na tëj na. tëj na. xandooral. maa ngi nelaw. waaw tolol jot naa wax ma la dara waaye wóolu giñ la wóolu bu ko la ilaha illallah xanaa mën naa bàyyi sax fajar gi ma julli. lislaam dagg na say lex de <laughs> yow.